ak ànd ak ñoom si moom Talla ñoo ngi ànd ak ñu macha allah ñu teerte ko fii nga xam ne mooy ak aéroport international bi ak Diagne ñu ñaan sama borom subhanahu wa taala teer gi lépp nekk suñu xisaab ak yéen maa nekk loo xam ne wàcc na ci kaw wala wàcc na mbooloo Sénégal yëpp rek alhamdulilah rabbil alamin nga ànd ak ñoom si moom Talla ñoo ngi ànd ak ñu macha allah ñu teerte ko fii nga xam ne mooy ak aéroport international bi ak Diagne ñu ñaan sama borom subhanahu wa taala teer gi lépp nekk suñu xisaab ak yéen maa nekk loo xam ne wàcc na ci kaw wala wàcc na mbooloo Sénégal yëpp rek alhamdulilah rabbil alamin